ñi nga xam ne bii ñoo jiite réew mi muy responsabilité bu rëy yàlla teg ko ci seen kaw ñoom ñoo war a góorgóorlu fexe ba citoyen yépp am dund gu teey am dund gu neex am dund gu nëtëx sëriñ bi nee na kon mi ngi sàkku ci nguur gi nañu bàyyi xel ñi nga xam ne dañu néew doole suñu mbokki baykat yi rawatina ren nga xam ne bii nawet bi melul comme daaw dund bi demewul noonu te ñoom mbay la ñu yaakaar ginnaaw yàlla mbay mi demeewul noonu eh, ñu ngi ñaan nguur gi ñu bàyyi leen xel bu baax a baax dimbale leen xam ne fa ñu dëkk sori na am na ci ñoo xam ne amuñu courant am na ci ñoo xam ne amuñu ay yoon am na ñoo xam ne amuñu ndox ñu bàyyi leen xel yërëm leen fa tabarakallaahu xam ne loolu yëpp responsabilité la ëllëg bu yàlla di laaj kenn ci xulafaa yi dafa am benn bëy bu doon romb ci benn pont yàlla dogal mu daanu tànk ba dambu xalifa ba nga xam ne moo nekkoon xalif ca jamono boobu bi mu génnee àdduna am ku ko gis mu taxaw taxawaay bu yàgg yore sarbet mu ne ko lu nekk sa mbir mu ne ko ba ma génnee àdduna ba léegi yàlla mi ngi may régler bay wi nga xam ne da doon jaar ca pont ba te ma waroon koo defar defaruma ko tànk ba surux mu dam moom lam la yàlla régler boobu ba léegi sëriñ bi nee na nañu bàyyi xel baykat yi nañu bàyyi xel nappkat yi nañu bàyyi xel borom métier yu tuuti yi nga xam ne bu ñu xëyee aslëf la ñuy fortaatu pour yóbbu ci jox seen njaboot ñooñu ñëpp nañ leen dimbale bu baax a baax a baax tomb bi ci tegu sëriñ bi nee na wàllu njàng mi itam yëngatu na lool ci biir senegal dañ daan wax ubbi tey jàng tey waaye ubbi tey grève tey te loolu lu doy waar su ko defee jàngalekat yi ak syndicat yi ak gouvernement bi war nañoo mën a toog waxtaan waxtaan wu am solo engagement yi nga xamne ne état dana ko jël lam ci man mu def ko lam ci manul ñu jëm ko def ndànk-ndànk ndax aduna xëyul xëy soti serigne bi neena na ñaar dana yàq ant sàkku lo xamanteni bi munta nek ak gàntu lo xamne man na nek bu ci nekk dafay yàq ant kon réew mi ñoko sekk buñ ko yàq jangale kat yi buñu top rek seen bëgg-bëgg ñoom itam état bi itam bu mu daw lo xamne bi war na leen ko defal pour njàng mi wara mëna mën baax boo dee seet niveau wu xale yi léegi dafa wàcce wàcc da ngay gis xale bu dem ba am bac waaye bu bindee lettre faute yi muy def xale yi daan def certificat bu njëkk sax fa tabarakallahu passé nañu yooyu ni yooyu niveau kon njàng mi itam nag war nañu ko seetaat tëral programme boo xam ne bii dana dëppook suñu ay réalité waaye programme boo xam ne bii li ci ëpp da nga koy jëggaani ci bitim réew ca ña ña ña ko tegoon ñun bo tegaluñu ñu ko woon ñun kon programme bu ñuy jël bu mën a doon

war nañ leen a jàppale bu baax a baax a baax a baax ci wàllu ndimbal ci wàllu dëkkuwaay ni ñuy financer di subventionner yeneen établissement public yi ak privé yi war nañ koo jàppale sëriñ daara yi su fekkee dañoo bëgg a moderniser daara yi nañu ci boole borom daara yi ndax nit ki kat boo ko dee ñawal yére te mu taxaw ne jonn te nattuloo ko yére ba nga koy ñawal mën na koo ëpp wala mu gàtt te yére bi bu ëppee bu jubee ñu ay mbokkam ñu ne kii ana ay mbokkam su gàttee ba ëpp ñu ne kii ana ay mbokkam kon il faut nañ ci associé ñi nga xamante ne bi ñoo yore daara yi jàppale leen jàppale xale yi ba dootu ñu nekk ci mbedd mi di taxawaalu dootuñu pickpocket dootuñu yalwaan loolu war naa mën a nekk bu baax a baax ndax ñun ñëpp réew mi moo ñu bokk ëmb. bi ci tegu moo di ñu jéem a jàppale jeunes yi xale yi ci wàllu liggéey ndax xale yaa ngi dem ci géej ñaata doomu Sénégal moo des ci géej te li tax ñuy dem lépp. ñàkk yaakaar xale yooyu parents yi war nañu wax ak ñoom sëriñ si war nañ ci dugal seen loxo imaam yi war nañ ci dugal seen loxo état bi war na ci dugal loxoom ñu mën a fexe ba wutal leen ay liggéey xale yi mën a toog xam ne li ñuy wuti bitim réew bitim réew a gën a metti Sénégal foofu fa tabarakallahu ñàkk yaakaar moo tax ñuy dem waaye war nañoo mën a waxtaan ak ñoom téye leen ba ñu toog fa tabarakallahu su amee rek lu bare bari délinquance bi nga xam ne mooy délinquance juvénile bi am dana wàññeeku. ay xale yu tuuti ngay gis léegi ñuy rayanti ay xale yu tuuti ngay gis ñu ngi ci dorog bi ay xale yu tuuti ngay gis li ñuy tudde naar bi pari foot waaw naar bi pari foot waaw mi ngi ci réew mi ay xale di ci dugg ay boroomi kër di ci dugg da ngay dem dem ba ñàkk sa kër ñàkk sa alal ñàkk sa lu ne te carte rek moo koy waral te carte moom alalu ku ñàkk pexe la waaye ku am pexe dëgg-dëgg am liggéey xam li ci carte am na loo xamante ne bii doo ko laal téere yi dañuy wax ne su ma waxoon Abdou Aziz Mbaye mii ne ko Abdou Aziz Mbaye kaay ñu joué carte ci foog ñun ñaar ñëpp war nañoo kafaara ndax bàkkaaru bàkkaar bi boo ko wax te joué ñu carte kon carte baaxul sëriñ bi nee na état bi ñu ngi leen di ñaan ñu topp ñu wut politique boo xamante ne bu leer lay doon fexe ba li état bi am ci ay richesse ñu fexe ba bu ñu koy séddale ñu ko moom mu nekk distribution boo xam ne bu équitable lay nekk waaw ku ci nekk mos ci la la la way juróom bu baax ba daan wax ne eh, eh, ñun dañoo war a nekk benn benn benn bloc ba nga xam ne ku feebar ñu fexe ba nga faju ku bëgg a jàng ñu assisté la ba nga jàng ku sonn ñu assisté la ba nga sa coono jeex wa man lam yaduq daw wax naahu ku mosul ñu fexe ba nga mos bari na kuy coow dafa mosul ba bu mosee rek jàmm am kon nañ fexe ba ñëpp mos bi ci tegu moo di sëriñ bi nee ne mi ngi ñaan maire yi nga xam ne ñoo yore dëkk yi nañu gën a taxawaat bu baax a baax a baax dëkk boo ciy jub la lay njëkk a gàttandu mooy mbalit te mbalit baaxul dañuy wax ne ñett yii bu dul woon ak ñoom doomu aadama fanam dana gën a gudd xet gu naqari ak saxaar ak poussière an natnu wal xubaaru wad duxaanu law laa humu la ummira insaanu kon environnement bi l'islam daf ko bàyyi xel waruñu ko polluer ndax suñu dund ci la aju garab yi bu ko kenn dog ndax boo ko daggee dafay daal di indi désert dafay suuf si dafay dee taw dootul yomb dundu nit dootul am benn sens kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax bi ci tegu moo di sëriñ bi nee na nañu bàyyi xel bu baax a baax hôpitaux yi ñu fexe ba jox leen li ci war ci ay fajukaay fexe ba am itam équipe médicale boo xam ne bii danañu bu qualifié lay doon ñu jox leen liñ leen war a jox ci liggéey ndax itam nit ñi sonn nañu bari nañu bëgg a faju te mënuñoo faju nee na am na loo xam ne bi itam ñu ngi koy ngurngunee ci réew mi li ñuy tudde avortement médicalisé dama dem ba bëgg koy yoonal mu bëgg nekk yoon woo xam ne ñi sàggan ñëpp danañ ci jaar pour bëgg nekk ci ay caaxaan ba bu leen ca caaxaan fekkee ñu ne am nañu yoon wuñ ko mën a dindee loolu yëpp bunt la boo xam ne dafay yàq réew mi yàlla nañ ci yàlla boole musal bi ci tegu daal sëriñ bi nee na mi ngi woo citoyen yëpp ñun tam nañu am yar am teggin waaye nekk ci mbedd mi nu la neex dawale fu la neex gaare fu la neex